salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi nuyu sama nijaay ah di nuyu suñu ah, professeur comment dirais-je encore ah, ah, El Hadj Maodo Mbengue su ma ko waxee rek ñëpp war nañu xam kan la ak fa ma di ci teg sama nijaay ma. Mbengue di sama nijaay préféré tubarkalla boobu dama koy wax fu ne ba mu koy wax ba mu ko di wax léegi ça fait plus de xaw ma ñaataat li ñu tax a jóg nag mooy gàmmu boqal li waral gàmmu boqal muy Cheikh El Hadj Malick Cheikh El Hadj Malick sëñ Babacar Sy sëñ Babacar Sy ah sama laaj Salif ku nekk xam na ni ah Babacar Sy ak Hadji Salif muqaddam yëpp xam nañu seen diggante muqaddam yi ci Sénégal yëpp xam nañu seen diggante parce que Maodo dafay wax ni kama ma jàngal ka ko jàngal ka ko jàngal ka ko jàngal maa ko jàngal kon su ma ko waxee ñëpp war nañu xam. lan la Hadj Sall doon ci kër gi njabootam yaa ngi nii nag ñi ñooy njabootam li waral gàmmu bokkal nag ma nga ca biir daf ca sóobu moom tooyu ca de daf ca sóobu tey taalibe piir la ndax Hadj Salif am sa doom mu génn àdduna sëñ Babacar si yebal Koppadoor pour mu jaale ji benn wëliyu alaaji Baba Ndiongo ca Podor ah woykat ba woy ko ni xaaji Salif kenn du yow doom ja mu dem bàyyi ko fa te ci ndigal la ko fa bàyyee mu ni doom ja mu dem bàyyi ko fa gaal ga tëdd ñëpp a nga naan xaaji Salif kenn du yow Seydi Mbay moo ko yebal Podor la wax doom jëddee mu dem bakk fa gaal ga tëdd ñëpp a nga naan aji salif kenn du yow mais nga mën mane su ko waaw woykat ba woy na ko donc aji salif bokk la bokk ndeyam fii la Mbay Saar ñoo bokk benn ndey moom fii la bokk te mu bugg ko lool nag te it bëggoon sax bu jénnee àdduna nañ ko fi indi waaye nag mag ña ca Tiwaawan ñu ni mukk kii foog xabroom fii lay ne ca Ndar ñu di ko ziyaare di taasu ci barkeem fa tabaarakallaa fa tabaarakallaa donc cosaanu gàmmu gi moo fi nekk fa tey gis nga ah waa naameen yi gis nga de sànni benn xeer jëm ñaari picc yàlla leen ci boole de yéen ñi di seen taalibe dëggu ndax kenn woowu leen kenn convoqué wu leen yàlla moo indi ngeen fekke lu ni kon nag fa tabaarakallaa du ma ko guddal parce que bu ma ko guddalee yu bare duñ ko mën a jël ndax temps su ko defee rek loolu laa moon la may wax ci sama maam bi salaamaaleykum Euh, maa ngi nuyu ñëpp ci gàttal rek balaa may dugg ci waxtaan wi wax dafay am seede euh, li sëriñ bi wax léegi Ousseynou ci Seydi Salif bu ko Cheikh Al joxe ndigal pour mu dem ca ca Podor teewal ko ci dëju Alaaji Baaba Njong fekk doomam génn àddina mu jéggi fa néew ba dégg nga bàyyi Alaaji Abdou Aziz si ni ko seen néew ngoog man maa ngi dem ci ndigalu sëñ Babacar doom jooju mu bàyyi woon noonu Umar Mbeng lu tudd moom la ñu tuddi Umar naam mii doom jooju mooy suñu waajur di waajur ama naam mbeng mii ak waajur amate mbeng ak sam ak man doom jooju moo bàyyi doom boo xam ni yàlla yóbbu na ko Podor mu dem ca lycée élage Hadj Baba Ndiong nekk fa proviseur ñu jël ko ci juma El Hadj Baba Ndiong mu nekk fa imam mu am logement ci rue El Baba Ndiong kon du hasard loolu dama ko doon jàmbaas rek ci lu mu waxoon léegi askanu naam yi nag suñu teewee kii nee na genn wàllu alaaj Sall waaw waaw ndax asu naam <laughs> moo meñ asu naam rek dégg nga jeex na gàmmu gi nag sëñ Ousseynou wax na ko ci Seydi Hadj Malick la radiyallahu taala premier gàmm bu mu defoon ak góor gi alaaji Baba Njong kooku mooy départ ba gannaaw gi ca la joxe ndigal ay muxaddamam ndax Seydi Hadji Malick moo jëkk indi décentralisation gox bu nekk mu def fa mu xàddam mu nekkal ko fa ca lay indee El Hadj Abdoulaye Sow Dagana El Hadj Baba Ndiong mu samp ko Podor El Hadj Salim mu indi eh, Ndar ba Bakel yaa ma fi nekkal Ndar ba Bakel ah eh, looloo tam eh, kóllëre la nee nañ kóllëre gannaaw lay fi ndax Seydi Hadji Malick bu mu ràññaanee di jàngi à l'âge de onze ans boqal gii la jëkkee bu mu ñëwee bokkal di jàng kër gi moo doon këram ndax eh, soxna Ramata Jàll yayu Alaaji Salim Mbeng ci kër gi la fatoon Alaaji Malick mu nekk ndongo ndongom moom mu nekk yaayu yaayu daaraam Ramata Jàll moo nekkoon yayu daara Alaaji Malick bu mu amee 11 ans di jàng ñëw fii ci bokkal foofu la kóllëre Alaaji Malick ak Alaaji Salim foofu la tàmbalee bu Alaaji Malick nekkee Ndar fekk Alaaji Salim nekk fa am fa yàlla boole leen encore yaayam bind ko lettre ni ko demal ci euh, sa mag Malick magam la ndax wax doomu ndeyam la ba mu demee ci gàttal pour mu jox ko wérd Seydi Hadj Malick def ni ko sañu ma joxe wérd tey ndax dafa duñu am gan surtout Cheikh Ahmed Tidiane Chérif bu ñuy wax mu lay wakil mi ngi teew ci dëkk bi kon euh, deratu Cheikh du fi teew may joxe tarixa bi indi ko ba ci mu lay wakil pour mu jox ko tarixa bi mu laay wakil moo jox El Hadj Salif tarixe bi waaye ci saasa la ko Seydi Hadji Malick li jaasaal moom rek la ñu jox euh, euh, euh, tarixe bi tey li la tey mu pare dégg nga sëñ Babacar feddali li jaasa bi ba pare jox ko ni ko jox nañ la marte ba léegi ku la neex waxuñu ku la neex mën nga ko li jaasaal waaye ku la neex mën nga ko mu xàddamal El Hadj am na 35 mu xàddam yoo xam ne ci ci loxoom la seen kii jaar garaatu mu xàddam ci tënk rek wax ni relation entre El Hadj Salif ak El Hadj waaye Cheikh Al Khalifa nag moom bu mu ñëwee daf ni sama wajur du samp dara may seen ndax dëgër na walla dëgërul cër bi nga xam ni teraanga nga xam ne El Hadj Salif El Hadj Malick Salif Cheikh Khalifa moom dafa ñëw yokko ko euh, daf ni ko ndar ba Bakel yaa am fi nekkal wante am nañ ay dëkk yoo xam ne kër Birane euh, Asola Dun Baba Dieye kër Barka jël mbaam dëkk yooyu ci gannaaw ndax nekk ci wetu Gànjool ñëpp xam nañ leen ñooñu duñ daan ziare si at mu nekk Cheikh al Xalifa Cheikh al Xalifa ni leen bu leen ñëwati Tiwaawoon di ma ziar su ziar jotee dem leen ci Ndar ci El Hadj Mbeng suñ ko ziaree ziare ngeen ma lu mu leen wax maa leen ko wax li ngeen jëflanteeg moom man ngeen ko jëflanteel boobu ba tey loolu ba léegi mi ngi dox waaw waa kër ba jël mbaam ak kër barka Cheikh al Xalifa fonkoon na El Hadj Salif jox boo xam ni Euh, su ko bindaan lettre eh, dafa tan def rek eh, ila xaaj salif aarifil masalih loolu mooy adresse am sëñ Babacar noonu daan dàkkante laa salif sëñ Babacar bind ci loxoom boobu ni fii salaati mu ne El Hadji dafa mel ne kuy julli loolu ngay teg ci sa lay aar ci julli noonu la El Hadji mel ci tarixa bi noonu la sama digganteek moom mel te loolu am na euh, benn sëtam bu ci wax lu yéeme bu yàggul rek wax wax ma jóob mii mu di euh, sëñ Mansour si Jamil wax lu yéeme loo xam ne ci diggante El Hadj Salif ak Seydi euh, Ababacar si loolu duñ ci ñëw waaye doñ na tegtal rek ci sëñ Babacar cër bu mu ko joxoon buñ ko décoré moom sëñ Babacar bés boobu ñëpp gis nañ photo yi gouverneur décoré ko mu xaadam yëpp ñëw di ko ndokkeel dafa xëcc El Hadj Salif ci wetam di ko wax sa sa defal nga lii sama waajur defal nga li sama waajur defal nga ma lii wax mu yàgg mu ni cey ndax danaa amati ku mel ne El Hadj ku mel ne Cheikh Al Khalifa Ababacar ak grade bu ko jox mu ndax danaa amati ku te ku mel ne El Hadj kon kooku mooy El Hadj Salif loolu moo waral gàmmu gi premier gàmmu bu ñu def fii ci bokkal El Hadj bu mu jógee ndar taara la dugg taara mooy gaal yu mag yooyu bato moom amoon na ci ñett. yu daan dem fii ba euh, maatam di yóbbu ay marchandises taaralu dugg waa bokkul ñu ko teroo ci dex ga bu mu ñëwee ci dex ga taara bi mënul egsi ndax euh, bato bi dafa mag dafa yem ci am na fu mu yem mag ñi ñoo xuus am na benn ci mag ñi ci moo boot El Hadj Sarr wàcce ci ñu defal ko tertu bu ñuy def gis démb ci saanu tertu bi foofu la ci El Hadj Sarr tàmbale woon loolu mooy dox ba tey ngeen gis tey suñu su gàmmu gi jotee fu nekk ay convoi jóge fa ñii Dakar ñii Nouakchott ñii Ndar ah góor gi ji waat jaw de waa way jur Alaaji waaw wax ne ko papaam dégg nga nee nañ moom moo ko bootoon góor gi wàcc ci pour wax ni loolu cosaan la waaw ci gàttal daal euh, euh, kër gi ngeen ñëw tey muy kër Alaaji Salif muy ëttu Alaaji moo tax euh, ñoom suñu rek Alaaji Mujjo Mbeng ñu ngi koy gën bu baax ndax daf nii ñun kër gii ñun ñoo ko war dundal Euh, fu ñu dal fii ci dëkk bi ñàkkuñu ko am na foo xam ne su ñu demoon daañu leen jox sax chambre climatisée waaye du ñu di ñëw fii ci tànt bi ngeen gis ñëw ci ëtt bi waaye l'essentiel ñu ngi ci kër El Hadj moo tax fu ñu jógee fii la ñuy ñëw waa kër El Hadj Tidiane ñoom daanaka moog sama sama wóor jot El Hadj Aman Mbeng Salif moom bu ñu musaan ànd cër bi yëpp da ko jox El Hadj Tidiane moo tax bii bu ñu taxawee julli ma ni El Hadj Salif ñang kenn du fi jiite yaa fiy jiite ndax alaaj Tijaan mu musaan ñëw fi ànd ak am beeg moo fiy jiite mu fiy jóge kon relation yooyu moo amoon ci diggante alaaj Tijaan nag diggante ak alaaj Sarif muy wey tey ba ci njaboot yi nga gis leen taxawaay bi bon xam naa ni wax dëgg xaabaabal naa sax wante lu ñu ëmb yëpp waroon ko fa génne ka wax dëgg asaka bi sax génnul waaye dafa fi dul xaj daf dafa fi dul xaj moo tax du ñu junj rek du ñu junj rek ngeen jéggal ñu yéen neen la nangul ñu asalaamaaleykum wa rahmatulah barakatu ah di sant sunu borom bi rek Hadj Maodo eh, ni nga ko waxee bu ñu ñëwoon dal feneen kon day nekk pertement si ñun ndax boo ñëwee comme ni ko askanu naameen defee nii rek fii la secret bi nekk fii la mbóot mi nekk moo ta mbéy ñu ñëw fanaan fii ndax mag ñi fii la daan fanaan mag ñi si ëtt lañ daan nekk néeg yi nga xam ni te tey njabootu ba Alaaji tiijaan ñoo fa nekk. noonu la mag ñi daan ñëw ku nekk dugg sa biir nekk maam El Hadj Tidiane Niang su julli jotee ñu ñëw julli si ëtt bi kon feneen fu nu daal rek ñàkk nañu ko perte nañu ko kon jarul sax ñuy ñëw di gàmm si sant yàlla nag askanu naameen sëñ Babacar El Hadj Tidiane seen président jiite ko ñu leen di dalal seen kër ndax asunaam moom moo jur amoon mbéy saalif kon yéen tamit bu ngeen euh, euh, demoon feneen itam yaakaar naa ni ah, maam asunaam dañ leen demandé ngeen rendre ko compte. waaye incha allah eh, yal na yéex du ngeen dajeeg mag ñi mu sëgg yàlla na yàlla yàggal taxawaay bi rafet na rafet na rafet na ba ngeen jógee eh, Thiès wala ba ngeen jógee dakaar jaar Thiès comme ni ko convoi bi di defee jaar Ndar walla jaar Louga d'abord ci kër Pape Xaali Mbeng jaar eh, ñëw Ndar fanaan fa xëy suba ba ngeen demee na ngeen dal sa sànc ba sa kër amul Mbeng Salif kon xam ngeen itam foofu mooy seen kër ba nu jógee nag jaar si xabru boobu comme ni nga wax si góor gu tedd googu ma alaaji Salif nga xam ni bala ñu koy denc foofu magu boqol yi euh, waa Ndar maam alaaji Rawaan Ngom bu Paal déplacé wu na ay yoon ñëw di demandé waa boqol ni leen maam Salif de bu génnee àdduna du ko bëgg denc euh, Ndar magu boqol yi sax bañ nanu waaye bi maam Rawaan ñëwee ay yooni yoon ñu ni man góor gi daal na leen ko ruus may ka lii nga xam ni bu maam alaaji Salif génnee àdduna ñu mën ko denc si xabru boobu. si biir jumaa maam rawaan boobu nga xam ni damay faral di wax ni bu nu ko doon séddale wala di ko dindi wala di fa dindi maam Salif def ndax yàlla daf ko mayoon mu am teraanga démb rek sunu xalifa bi may màggat mbeng yal na yàlla yàggal taxawaayam yàlla yokk leer El Adama Mbeng xalifa bi nga xam ne moom la remplacé te bi mu fi jógee yàggul mi ngi koy wax ni maam Salif ba masaan ñëw fële sa Ndar lalam bi mu teg day toog moom si sajaada bi teg fa peeru euh, lal ba mu lal ka drap bu weex def fa ay téere ba mu fees dell mag ñi ñëw di jàng si alxuraan foofu mu leen di wattul seen téere yi si xeetu xam-xam bu nekk nag waaye nag ndax maam Salif ma san ko laaj ni ko lu tax doo bind góor gi mu ni bëgg mën naa bind nag ndax moom ku nekk xam na ni eh, ndar mag ñi fu ñu ko masaan laal si xam-xam mu tontu leen waaye mu ni bëggul bind ndax dafa bañ bind ñu koy gam-gam léegi ak bindu Seydi Hadji Malick ndax cër bu joxoon Seydi góor googu nag ñu ni xalifa bi moo ko wax démb pam màggat bi fa jaaree di ko ziyaare ndax naka bokkal dañ ko daan defee sa mag ña rek comme ni mu ko waxee cosaanu kii bi euh, convoi bi dañuy jaar sa kër ga moom mu ñaana leen mu ni leen nag kon nag amalay saalif nii la taxee woon si ndar bu paree jàngal ba pare yàlla may na ko euh, mu am teraanga daf lay jàngal may la booy dem mu may la xaalis mm-hmm. waaye nag bi ñu ñëwee si xabru boobu si góor googu jaar si xabru gi nga xam ni mooy Euh, maam Amadou Mbengue Salif nga xam ne sa jàkka ja itam moom ko denc sa ndar si jàkka El Hadj Salif Mbengue waaye ñu ni foofu ñu ko denc jamono boobu colonial kenn daawul denc si biir dëkk kenn daawul denc si biir dëkk waaye nee nañu bi nga xamee ni décidé nu denc ka sa ndar ba nga xam ne mag bokkal may nañu maam rawaan pour que maam Salif bu génnee ñu denc ko si boppu jàkka jooju sëñ sëñ Babacar si si boppam euh, moom moo moom moo toog sa Tiwaawan gouverneur général de l'époque doon tubaab bi ndax kenn daawul suul si biir dëkk waaye gouverneur général moo ko defat autorisation spéciale pour que maam Salif bu génnee àdduna ñu denc ko si biir jumaa jooju tey fi ñu ko denc tey nii waaye nag la sa am nag mooy euh, dafa yëkkati autorisation bi jox ko Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum ni ko soo demee nga yóbbul ko Ndar sa maam sa sa waajur maam El Hadj Salim Mbengue Cheikh Ahmed Tidiane Sy moom moo ko jël indi ko ba si nag li ñu koy waxee rek El Hadj Major Cissé wax na ko si gàmmoom taxawaay Alaaji Salif Mbengue ndax bi nga xamee ni gàmmu ndar gi tey taxawal nañu ko mu tàmbalee si góor gi Maajoor Cissé nga xam ni dafa joxoon cër maam Alaaji Salif donc démb rek ñoo ngi koy wax góor gi Maajoor da daan déplacé di jóge kër fa mu dëkk di seet si maam ba mu demee Tiwaawan sa président daayira ni euh, sëñ Babacar ñu de den du la bëgg taxawal gàmmu sa ndar waaye nag ñun de tuuti nañu dem sa ndar di yëkkati sa kàddu foofu kun la xamal mooy Alaaji Salif Mbengue sëñ Babacar ni ka nag jox naa leen si ndigal bu ngeen demee ngeen ànd ak góor gi teg naa gàmm gi si loxoom. Eh, wax dëgg nag eh, tey ñuy gërëm nag encore ah Mourchid TV ndax ñoom ñoom wét ñoom wéetalu nu de waaw lu nu woote nag lu wësee nu nekk rek ñoo ngi si yàgg na nag te du tey nag dañuy jóg jël ay caméra fekk ñu bu doon appel wala avant première te lii dañ koy teg ay yooni yoon. Mm, wa rahmatullah taala barakatu maa ngi. nuyu mbokk yëpp euh, di jël kàddu nag ci turu njabootu Namène euh, ñëw di fii di suñu kër euh, di jël nuyoo Namène yëpp di ko teg ci loxo El Hadj ak El Hadj di leen ñaan ngeen jottali ñu ko El njabootu El Hadj Salif Mbengue yëpp comme niñ ko waxee rek kër gi. defe naa ci njaboot gi la ñu bokk parce que suñu maam ji nga xam ni moo jur suñu maam Amadou Mbengue Salif ah, Samba Thiam Kanam moo mii cos nekk woon fii bokkal moo ko jur ah, donc Amadou Mbengue euh, El Hadj mbeng Mbengue ñun di suñu bunt ci kër El Hadj donc day baax ñun bu ñu ñëwee fii ci gàmmu gi ah, bu ñu dalee suñu kër maam ba euh, fanaan ci jàmm yàlla may ñu bu ñu xëyee nag ñu topp tànku mbokk e, ñëw feddali kóllëre gi nga xam ni dafa mës a dox ci famille yi e, kóllëre gi nga xam ni naameen ak mbéngeen dañ ko mës a dox e, nga xam ni tey comme ni nga ko waxee rek mag yi tey boo leen yeewoon tey dinañ xam ni njaboot gi ñu fi bàyyi teggi nag kóllëre gi doxoon ci famille ñu ngi ci tànk yooyu ñu ñaan rek tànk yooyu yàlla may ñu ñu ko ñu koy dox ay at yu bare ba suñu sët ak suñu sëtaat yàlla nañ ko yàlla defal لا إله إلا جميلا ربي والحماية وحرصك الدائم والوقاية سرين بابا كرسيني مغيث يا محيي المميت المالك يا من جرى بيده الممالك سريع يا مبدئ من له القتال يا واجد الذي قد اوجد العدم برم بنكار بني ترحمنا برحمة تغنينا عمن سواك سؤلنا تعطينا قصر بعير بعل تطمير السعادة إفتان يا سيدي أشجار مائلة تمشي بساق فما في الساق إبقار Thiam Mansour di président daayira Sëriñ Babacar Sy bu bokkar bu mag bi en même temps di président de la fédération des daayira de Bokkol ci ndigalam donc ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax gudd fan ak weer yal na la ko yàlla may ci daraja Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñuy soree rek ñu joxtal la fi yoo xam ne fii yow lañ ko fiy baaxee comme ni mag ñi daan defee lettre yi mi ngi jógee ci daayira des femmes Maam Rama ak Aminta Ndiaye Ba kii ñu ne duut kenn moo ko moom am joxal ma duut kenn lettre boobu kii daayira Ramata Wàdd ñoo la ko jox duut kenn waaw kii Ramata Kumba Dia comme ni mu ko daan defee sa papa ca mbay doonde moo la joxaat mbuus moomu nee na yaa moom kii nag ndaw suñuy wax aya ah, soxna suñuy wax jama caam ca kër biraan moo la jox loolu nee na nga barkeeloo ci waaw donc ci kaw la am nañ ci El Hadj Idrissa Mbeng El Hadj Idrissa Mbeng joxal ma ko lettre bi daayira Aminata Ndiaye Ba ak Maam Rama Sarr ñoo ko jox les de gaaya maanaam ñu doon way fii chanteuru gaay yi anañu ñoom ñoom moom lettre boobu bii lettre waa kër El Hadj Tidiane waa kër El Hadj Tidiane bu Ndar bu Ndar am joxal ma kii maam imam Issa Dia daayira Aminata Ndiaye Ba ak euh, maam Rama ñoo la ko jox Issa Dia imam bon ci kaw loolu duudu balaa ñuy jox kare gi kar kàddu gi ki président fédération des daayira de Bokhol Ibrahima Thiam Khalil ñu am rek kàddu cant ñu fi def avant kàddu gi dem ay kàddu remerciement lay doon rek euh, yu demee ni ko ku demee ni que Moussa mbay Moussa mbay di doomaanu Bokhol jàpp na trop ci gàmmu sëñ Babacar Sy bi pour mu réussir ma Diop Mbengue jàpp na ci Ousmane Gueye bu ndakaar jàpp na ci Doudou Gaye bu cees jàpp na ci. ma Mademba Gueye ma Mademba Gueye jàpp na ci docteur Mbaye Thiam ku jàpp ci gàmmu ga la bu mu avancé jëm ci kanam Oumar gay jàpp na ci Oumar Gueye Asmalik bu Dakar Gora Mbaye ak Cheikh Yacine Gueye aussi jàpp na ci gàmmu gi Baba Ndiaye sàll bu njër ba jàpp na ci Baba Djigo bu bokkal Jibi Kobar bu Kër Biraan ak Souleymane Djigo aussi jàpp na ci gàmmu gi donc ñooñu ñoom ñu ngi leen di gërëm di leen sant Amadou Samb bu bokkal ak usmaan ñaa bu Njaareem ak euh, Mat Sarr Sëy bu Njaareem ñu ngi koy gërëm di ko sant Abdoulaye Seck bu Gaani Imam Góora Diagne bu Gaani Abdou Sëy bu Bokka ñu koy gërëm Abdara Samba bu Gaaya aussi jàpp na ci gàmmu gi Umar Lo bu Njaareem jàpp na ci gàmmu gi Imam Cheikh Ndaw bu Gaani jàpp na ci gàmmu gi Kara Gueye bu gaani jàpp ci gàmmu gi ak Baara Samba bu gaani ñoom itam ak Maam Malick Ngom bu njër ba Moustapha Gueye moom itam ku jàpp ci gàmmu gi la Maam Omar Thiam famille Adama Mbodj famille feu El Adama Mbeng encore ñooñu aussi ñu jàpp ci gàmmu gi ñu ngi gërëm aussi El Hadj Ibrahima Thiam bu njër ba di imam di gërëm daayira Serigne Babacar Sy bu gaaya ñoom itam jàpp nañ Baye Diadji Thiam Sophie Gaye Oumar Lamine Ndiong di grand fournisseur bi nekk fii ci diwaanu Bokhol di jàppale baykat yi bu baax a baax ci kaw loolu ñu ngi gërëm ba léegi famille Jibi Guèye maam Aïda bu gaaya gis ñu seen seen seen jàpp seen lettre agsi na Abdou Niass sa lettre agsi na Alassane Guèye président union Delta sa lettre agsi na ak daayira Moustarchidine wala Moustarchidaty bu sëñ Moustapha Sy seen lettre bu baax a baax di leen sant. billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbooloo mi nu nu bokk sant yàlla nun ñëpp ndax fekke muccul ñu ngi ñaan yàlla mi nu may fekke nu fekke tal ni mu nu mayee fekke mu mayaat nu nu fekkewaat ak jàmm ak salaam ak suñuy bokk yëpp doomu aadama lu mu am na am ay bokkam lu mu ñàkk na am ay bokkam boo amee say bokk ñàkkuloo dara boo ñàkkee say bokk loo amee ñàkk nga guddi gi buñ ko taxawalee nii mu mel nii suñuy bokk yépp ci jàpp rawatina waa fédération bu bokkal suñu mbokk lesbiens yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant di ñaan yàlla yokk jafe-jafe yi bu nu mos am yàlla na ko yàlla dindi ba lépp nekk naataange ak kontaante ak mbégte ku gis lii xam ni nit ñi kontaan nañu lii lu ko dàq amul ay bokk yu ànd taxawal lu mel nii ba mu mel nii sant yàlla rek moo ci war donc nu bokk wax alhamdulilahi rabbil alamin duudu ñu ngi lay gërëm nii rek la lu dul nii rek du nii kon nii rek la yàgg nañu kontaan kontaan naan nañu yal nañu yàlla maye nu kontaanaat tey ak ëllëg nag euh, li nu bokk dafa bare te dara waru nu teqale yàlla bu nu dara teqale ah alhamdulilahi rabbil alamin Amadou Wele yow mi ñu teg ci diggante bokkal ak tiwaawan nga xam ni liy jóge tiwaawan ci yow lay jaar ñëw ci nun liy jóge luy jëw jóge bokkal jëm tiwaawan di jaar ci nun ñëw ci yow waaye nag mbir yi li tax li tax nga mos ci mbir yi ba xam nu mbis yi nu mbir yi mel ah loolu nag dafa am boroom borom nag mooy kër maam alaaji saalif yi tax nu xam lu xew ci tiwaawan ba man ci di jàpp yal na yàlla yokk leen fayal nu leen lépp rafet na rafetal ngeen jotal ngeen matal ngeen ah, wax ji du gudd ndax duudu duñ la namm kom yaa nu raw nag te dàqoo gënu bu nu dàqee kon daanu seet ku raw ah, maa ngi gërëm mbokk yëpp waa gaay ah, ku lim nag bàyyi kon nu bañ dugg ci lim noo ngi gërëm mbokk yëpp di sant mbokk yëpp Jibi Jàlloo ñu ngi sant yàlla rafetal nga jotal nga matal nga asalaamaaleykum wa rahmatullahi pour mu bañ gudd xam naa dama ni woon sax damay bàyyi ab lay béy mu wax waaye eh, ñu sànni kàddu rek boo gisee ma ne ab lay béy mu ngi nii Ablaye jógal taxaw yaakaar naa ñoom ñëpp xam nañ ko mu ngi fii ci Richard Toll kii bi Baye Mbaye Dondoo day ñëw podoor ak njandaan xale bu tuuti la di toog ci ko mu koy teg ci taabal ji maa ngi moom ñëw maase taawam Alaaji Mbaye Dondoo la ko tudde mu nekk fii fu mu mës a nekk Baye Mbaye Donde moo ko fa teg loola bàyyiwu ko ba nëgë nii lu bari la jël jox ma te tey laa ko woo rek ni ko comme duma dugg wàllu te jógoo ko waaye gàmm gi dañ ko tuddee Baye mbay mu ne ma tooñ nga ma ndax danga ma ko waroon teel a wax tabaarakallaahu ndax Baye Mbaye Donde lépp luñ ci war a def maa koy def ndax fi ma jaar ak moom tabaarakallaahu boo gisee ma wax ko yaakaar na ñoom ab dara ñii xam nañ bu baax eh, loolu nag du dugg fii mukk te ànduñu ba gaayee bari ki démb fuñ ci jëm mu nekk ak El Hadj Malick nekk fii ci Richard Toll lu bari la jël jox ko ci enveloppe bii ne ma dañ ko part dama koy participer ci gàmmu gi bi ngeen ma wooyee sax da ngeen ma ni teguñu leen dara xam naa ko sax waaye teraanga bi ngeen def dafa rëy yàlla moo dogal suñu kilifa di xalifa mbay mi taawam am ngànt tey ak jumaa ja yow mu fa war a def ndax zag boobu jumaa ji ci Thiès moo ko yore am yi am ay programme yu mu fa nekkee Cheikh Tijani voyagé dem biti réew gis ngeen ko ci xadara ba ca Philadelphie caat Pam Malik am gàmmu ñu ma yebal ko foofa te mu war a xëyaat dem feneen ma ànd ak alaaji Ousmane Kan mii di sama rakk sam papa tudde ko alaaji Ousmane Kan bu Kaolack bokk ak soxna sukkan ndey ak baay ñu ñëw ànd ak waa kër gi teewal famille bi bu ñu sañoon ay kaar lañ fiy gaare ndax bés gënu ko rëy ci ñun ndax marque de reconnaissance la marque de gratitude la tabaarakallaahu eh ko joxe bi waaye euh, <laughs> kon nag mu ngokk joxe ma tabaarakallaahu ñoo ci barkeeloo lool mu rëy lool ci ñun ci famille bi ndax seen diggante ak Baye Mbaye Dondo ca dund sëñ Babacar ba nëgë bàyyiwu leen ànd ak njabootam ba nëgë ni fa tabaarakallaahu eh, loolu nag Euh, dafa rëy ci famille bi ndax sëñ Babacar moo ni woon wéléer way moo gën woy mat mais woy weq kan ko fasal bu fa jógee nga bàyyi ko maanaam bu fa jógee nga continuer ko way mat kan ko fasal bu fa jógee nga bàyyi ko te Serigne Cheikh si al Maktoum dafa am lu mu tagge Serigne kër si wa dumta amiral xaqi wa siddiqi wal rafiqan bi biidil ardi turran wa suudiha dafa di sëriñ Babacar dëgg su dee am buur yow la dëggu bu dee am buur yow la ndax mën nga nekk ci dëgg te doo ca dëggu te as-sidqu fa huwa zinatul muridi aadana allahu min al maridi nee na taaru taalibi mooy dëggu sëriñ Cheikh ni sëñ Babacar si nag bu dëggu dee am buur prince yow la wal wafa matal wëllëre su fekkente ni dina am buur yow la waaw sëñ Abdul Aziz moo ma wax ci làmmiñam ni ma sëriñ Babacar si bu ma masaana dénk alalam ma voyage walla mu yónni ma fenn ma génn nee bu ko fi soxla bettee sama ginnaaw buñ ko fi joxee dara sama ginnaaw nee du ko jëfandikoo du ci faj soxla bi day la su ma ñëwee mu ne ma Abdou lii de wuutu na la fi denc ko ci coffre-fort bi waaye soxla sàngam nag wuutu na la fi ci ginnaaw leb naa ba faj ko ci ne ma ne ko góor gi yow alal ji sa alal yaa ko moom soxla bi sa soxla la mu ni ko waaye comme bu day jaar ci yow ma dur ci jëfandiku rek su ma ko jaareelu ci yow jëllu la jëfandiku yow te yëgoo ko rek wuruj naa xoolal boobu matal woon la ah <laughs> sëñ si Sy Mansour xalifa bi day dégg naa ko mu ni Seydi Hadji Malick nee na nit dénk kayitu ñaar téeméer ñëw di ko jël si nga jox ko fukki ñaar fukk maandu woo donte 1000 francs nga ko jox waaye màngu ko moo tax waqat anaba aliyan ka yarudda ila dawil amanati iyaha bila yetam Serigne Cheikh nag ni sëñ Babacar matal wóllëre boobu nangu nga ko ci weex ci ku ku ne ku weex nangu na ko ci yow ku ñuul nangu na ko ci yow ndax kóllëre ba moo tax bone kaare rek nga koy gis leen kon nag tabaarakallaahu matal ngeen te wa wa euh, wa awfu bil ahdi innal ahda kaana mas'uula maa ngi guddal te waruma guddal yàlla nee na matal leen wóllare ndax dinaa ko laaj te loolu nag defar ngeen ko ci bàyyi mbay doon doon bu ñu amoon milliard defar tànt bi def lépp wallahi yàlla xam na ko dinañ ko def ngir mënuñu mesurer euh, rëy ji mu rëy ci ñun jëf ji ngeen jëf ngeen baal ñu xaq bàyyi laa ji Idrissa ñu gis yar baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu asalaamaaleykum Euh, ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam euh, di ñaan yàlla ñi dawlu na yàlla yokk seen leer euh, dinaa laal tuuti ci mbay donde parce que mu fi nekkee xale mbay donde numéro deux lañ ma daan wooyee waaye dama ko daan topp rek ba kër biraan muy góor gu baax ku sell ku am bëggoon xale yi loolu xam naa ko na yàlla yokk leeram parce que Muhammad sallallahu alayhi kii nag maam Rama lañ koy wax moomu jur man di jigéen ju bëggoon Sëriñ Babacar Sy ah lu ne def na ko Tiwaawan yar na xar yar na xar mu duuf mu joxe ka fa gis naa ko itam mu muy wal ay cere barkaale di ko yóbbu Tiwaawan waaye mbaax du lu ma jur moo tax ma di ko wax mais am na yar-yar goo xam ni jigéen jii yenn yàlla yokk leeram seet am na yar am na teggin man de mosuma ko gis mu tooy ah, suñu rakk yi walla samay rakk suñu xuloo su ñëwee mënul àtte ndax bëggul kenn mer kenn bëggul kenn mer ku ko ne yaay doo ci wax doom waaye soxna la de Sarr fi nga tëdd yal yàlla yokk sa leer yaa nga àndal ci barki Seydina Muhammad sallallahu alayhi yàlla la sëñ Babacar Si mi nga bëggoon ci sa xol ah moog yaa binte ñoo nga ñoo bokkoon daayira bint ñoo nga koy xam ngeen kay waaw ñoo ko mës bokk créé seen yëf ak maam Rama Sarr mii nekk tey présidente moom it di sama jabaru nijaay ah Idrissa mii sama nijaay la ah du kenn ba ngeen xam que ah ma jóob mbeng sama nijaay la ci famille bi lañu bokk ñun ah Mikaaylu mooy mooy xalifa mbay sax fa tabaarakallah fa tabaarakallah ah nijaay maa ngi laa nuyu di la ziyaare di la jox itam sa wàccuwaay ah di xam ni itam ñun ku baax la ci ñun ah di ñaanal sama sœur yi nga xam ni ñoom ñëpp ak sama rakk yu góor yi ñoom ñëpp fa tabaarakallaahu kenn ku ci ne ah, indi nga sa parti indi nga sa participation ngir yàlla kon nag yenn yàlla fay leen ah, sama góor gi may donde yenn yàlla yokk leeram billaay wallaay waaw ah, ku baax la woon te ñun dañ ko miinoon ah bu ñu xamee sëñ Babacar si ak Cheikh Ahmed Tidiane si moo tax yenn yàlla fay la yenn yàlla yokk sa leeru dënn yenn yàlla aar sa njaboot aar ñi nga àndal yàlla bu ngeen gis mukk lu ñaaw ci barki Seydina Muhammad sallam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu هدانا allahuma salli ala sayidina muhammad ala ruuxi sayidina muhammad fil arwaaxi wa ala jasadi fi ajsaadi wa ala qabri fil quburi ala ahmad min rabbihi salawatuhu لقد عظمت في خلقه بركاته لقد بهر شمس الدواء معجزاته براهينه لا تنقضي وإباته وهياته سحب وأنمله سحب ñoo ngi nuyu mbooloo mi di jël nuyoo bi di ko teg si loxo Seydi Amadou Wele bu ñu ko nuyoo rek nuyu nañu njabootu Cheikh Seydi Hadj Malick yëpp nuyu nañu njabootu alfahima yoro di jagleel nuyoo Serigne Thiam Khalil Mansour xam nga mudaafun ilayhi léeg mu am daraja joo xam ni walla mudaaf ba dina am daraja joo xam ni mudaafun ilayhi bi moo koy jox boo nee kër rek yem sa kër yëpp dañuy yem waaye boo nee kër Cheikh Seydi Hadj Malick kër googu daal di am daraja joo xam ni yeneen kër yi amuñu ko ndax mu dafun ilay ba loolu nag moo dal Thiam Khalil Mansour doy na garaat di nuyu imam di la wàcce sa wàccuwaay waaye gis nga El Hadji Doudou Kende imaam yi benn kaala lañuy ñuy kaala woo waaye laaj ma kan mooy borom ñaari kaala yi ah, mooy rasulillahi imaam lil masjid wa surami moo man sa jàkk ja waaye moo man itam sa xare ba moo man jàkk ja waaye moo man itam sa xare ba sëñ léeg-léeg nga dégg jàkk joo xam ni dañoo wax ni dañu koo tëj ndax imaam ya dañoo xëccoo kenn ku nekk ni sa moroom may jiite xam nga lan moo koy faj danga leen di woon ñoom ñaar rek ni leen julli leen ma salaasu kusuufi shams julli muurum weer bu coow la bari teg leen ñoom ñaar rek kenn ku ne jullil ma julli muurum weer xam na lañ koy julee dangay ngay jàng faatiha teg ci baqara ba mu jeex rukkoo lu day na ko baqara siggi jàngaat faatiha teg ci ali imran duma ma si topp ja rukkoo lu day na ko ali imran siggi so ngay sujjoot benn sujjoot ba lu day na ko baqara su jootu ñaareel ba lu day na ko Ali Imran su koy jog nag indi ñaareelu rakk ba jàngaat fatiha lan moo si topp nisa ba mu jeex rukkoo lu day na ko nisa siggi su joot lu eh, eh, siggi jàngaat eh, ba mu jeex rukkoo lu day na ko maida su koy siggi lu day na ko nisa ak maida su gaa bu coow bareeti bu coow namee bare si réew mi si imam rek nañ leen woo ni leen sujjoot ni leen julli leen ñu ñaari julli leen ñu jël salaatu kusufi shams maanaam mooy jant bu ñu jàpp ñuy ndokkeel am naawu xadarati atijani du tey ñoo doon xadara ñoom ñooy avant wu gardu tarixa bi xam nga parti day am école ñooy wax l'école du parti waaye ñoom ñooy école du parti wala ñooy école lu tarixa bi loo tax ñu war a góor góorlu ñaar ku nekk war ngaa góorlu ba boole ko lu sa àlluwa gàtt-gàtt na nga fexe ba man laxdari lu sa àlluwa gàtt-gàtt nanga nga fexe ba jàng faaki faakihatu tulaab daf bare nag saw-saw yi si nekk xam nga du kenn bi may laate ñëw man werd naa sama werd suba ak sama wasifa bu gaañi dee jóge si tant bi julli ba pare di nelaw allah sëy na Muhammad man fekk na maa ngay nelaw xandoor waaw tahdimu werdu subi fii juri kadal wazifa min al masuri ñu ni ndax ngant tax déedéet amuloo bu am sax ngant dangaa dem tool téye gopp bi ku la nuyu nga ne oho oho oho bu oho bare moom a téere boo julee gee ba mat une heure et demie defal sa wird defal sa wasifa tëdd nelaw ashmalini wala tuqaddiman sayral awradi illa iza zananta usran baadi kon day mel ne ko contradiction bul jiital werdi lu dul da ngay fekk nga am gànt waaye xam nga yenn werdi lay wax werdu ngoon werdu ngoon ilaj juuj kenn mi xam voyagé xam Barcelone Madrid Cadiz Puerto Real quatre heures demi fekk la aéroport nga war a nekk ci bagage yi di dugg di génn ba da ngaa pare timis jot kon sa wér dut suba si ngoon mën nga ko def léegi xam nga am na sew sew boo xam ni gaa ñi duñ si baaxel léeg-léeg gi gis ku xaal jàpp mu dem sa sëriñ ba sëñ Amadou midi ni ko may ma wérd xam nga bu la ko mayee midi boo génnee xam nga si suba fekkoloon nga jël tarixa bi waaye werd boobu da nga koy war werd waaw ndax moxtaar ba weesu na waaye daruri bi weesuwul da ko bi ak tarixa bi nag dañu seexoo buñ la rawee waa am naa yi xadara yi ko doon def ñoom lay waxanteel buñ la rawee nga ñëw fekk gaa ña ngi si digg ak allahumma salli ala sayyidina muhammad wabtadi bi zikri lazi wajata zakirina in subihta wala tu awizan wala tu basmila tu basmila ayyuha almasbuux nilta amala boo ñëwee rek fekk ñu raw la bu fa nekk di ubbee jërëjëf bu fa nekk di ubbee foo leen fekk rek dab leen sa foofu suñ imam Dia bu ñu paree nga soog a mottali xoolal ni mu ni mu jumelé ak ak fekk bi nga doon wax léegi ñëwal si jàkk ji ilimaan jàng faati ak saar fekku la fi nga fekk si ruko looy def di dangaa rukkoo fekki ka wa ahrama almaswaxu fawran wa daxal ma imam kayfa kaana al amal mukabiran in sayidan aw rakka alfawla fi jalsa foo fekkee si ilimaan rek boo ko fekkee mu taxaw taxawal boo ko fekkee mu rukkoo rukkoowal boo ko fekkee mu sujjoot sujjootal boo ko fekkee muy taaya taayal wérdi bi itam foo fekk rek sa waay sosal foofu tariqatul fadli wa rida muassasatun bil kitaabi wa sunna ah waaw muassasatun bil kitaabi wa sunna foo leen fekk rek foofu ngay foofu ngay tàmbalee waaye léeg-léeg nga jum kuréel gi dañ ko nas muy quatre-vingt-dix-neuf nga weddi ba pare ndekete kuréel gi matul mottalil wastafiran miyatan fil addi zaydan wa naqsan jabra hadal waaye jullil nga am ñaar rakka war toog nga jóg taxaw ñu sàbbaale nga dellu si yokkuloo si julli gi boo paree looy si jot du baax de salaam fii itam weddi wi ndekete per kuris gi téeméeri per ak benn jërëjëf Sall téeméeri per ak benn wastafiran miatan fil addi zaydan wa naqsan jabara hazal werdi sëñ wele loo tax gis nga gaañ yi ñu xër ñu bëgg a wasifa fekk malaan bi nekkul nga gis ku ku jël yéreem wala kaalam bëgg a tàllal déedéet ëpp naa def na place ba laab rek na place ba laab rek kon waa xadara ab naa yu xadara ngeen yóbbaale loolu loolu mooy seen wal ci gato bi ñu waxante fuqahaa yi wa man lam yajid ma wala mutayammama fa arbaatu ahwaali yahqil ma zaaba gaynde dàq la nga tëb toram ba yëg ci kaw garab gi ñu nodd tisbaar géey looy def ah ah damay jullee ci kaw garab gi daa ñu ko jàngal de nee na boo amulee ndox amuloo suuf waxtu wi jot na Moussa xam nga lu mu wax nee na jullil boo wàccee fay xam nga lu dut kenn da wax nee na doo julli doo fay wa taskutu salaatu wa qada bi adamin mayi wa sayid tisbaar yaa nga sa kaw garab ga takkusaan yaa nga sa ba timis jot gay na njaay xam ni rëcc nga mu yëngal geenam dem boo wàccee yàlla nee na tiswaar ba bal naa la ko tàkkusaan ba baal naa la ko boo demee naanal xew ñu defar la supp nga tëdd nelaw ba fajar nag <laughs> sëñ ñambe ni doo julli waaye boo wàccee da ngay fay sëñ ma jóom ni déet da ngaa jooxee julli ga sa kaw noo ko mën a defe ko waaw ma laaj leen julli googu dañoo jàngale nag ku rëccale woon nag ndax julli ga yàqu na wala déet tontu leen si masala ba ku rëccale woon si julli googu ndax julli ga yàqu na wala déet du ngeen ma tontu rëccale daanu yàq julli ah daana yàq julli waaye bii rëcc rëcc bi moom du yàq julli julli nga yàquwul xam nga lu tax julli goo xamul amul njàpp amul tiim looy teg <laughs> julli amul amul njàpp amul tiim looy teg <laughs> looy toj waaw bu fa jëm wér di itam bàyyil boo wàccee bu waxtu wi desee nga wér bu waxtu wi desul wàcc na la e sëñ Omar njool yi itam duñu dugg di man maa la ko wax àjjana pas de grand pas de petit pas de gros pas de mince xam nga lu tax sëñ musa xam nga ku gàtt ku nekk ka la sut a tax àjjana kenn du sut sa morom ñëppay maase ñun ñëpp taxawaayu aadama alayhi salaatu wasalaam la am kon kan moo ëpp moo sut moroom ana njool ah yow 30 xasab man 30 xasab ah góor ak jigéen ah, waaye am na beneen problème bu fa am itam yàgg naa di ko wax aawo amu fa Ah, ah, ah ñaareel nga waaw kañ ñaareel ji ah waaw kañ eh, kii de sama doom ji de daf ma ko jox dóoraale sama loxo ndax moom aawa la la ilaha illallah ñaareel amu fa ñetteel amu fa ñeenteel amu fa waaye góor gi itam jog ni dama tey jii tey kotti kotti yolli yolli ñaari fan yi kotti kolli yolli yolli ñaari fan yi kotti kolli yolli yolli ñaari fan yi déedéet taalal sa télé amal ñeenti soxna kenn ku ne nga jëndal ko télé ni leen tey damay passé à télé kenn ku bu ubbee du gis sa kanam àjjana tam noonu la mel yaag sa waa ji guddi ak bëccëg matin et soir guddi matin et ban bañ kontaan nañ kon waaye jigéen ñi de dafa mel na yéen a ngi ni pat man dafa mel na wax naa lu ëpp de waxuma sax dara waaye gis nga dut kenn gis nga bi may gàmmu xam nga boo dee julli boo moyee penku sa julli yàqu na te yaaka tey waaye boo dee gàmmu jigéen ñi ñooy penku bi góor ñi ñooy sow bi man maa la ko wax ma ngee guddi lu tax ngeen taamu guddi gi taamu bés bi lu tax ngeen taamu guddi gi taamu bés bi rasulullah day passe partout jërëjëf ñu ngi ziar mu alhamdulilah ñu ngi ziar day passe partout bés boo ko jox moo weer woo ko jox moo ko moom at moo jox moo ma ngi guddi wa amoon suma soroon ma soroon suma yow wa amoon suma soroon suma yow wa amoon suma soroon ويا من أتى فيه الهدى خير الخلود في سرور في سرور في سرور ويا من وحيد دون عليان الغيوب وبقى الربيع واسنا في ويا من بحام الفيل يوما بعد جبل وكل ومولد وفي شرفه كل مكان ومولد في جو وعيدا ففي دعمتي من داخل سجود اخلني على سرور ولو كلاي ويا من ونجم الكفر دون نفس المي ويا من ونازعتي طيور كدا وخوص ويا من لحنان يكون رضا الخطير لسان الخضر قد نادى ويا من به سبح لمتنا ويا من به تعب الإله ولا أبي ويا من إذا يربى بدوري وإحياء منايا بعد العليا نرقد ومرتات بشيرا ينجى من خروج به حاضر تفيح بلا أدب به يكتم الصدور ويدا به الفلك إلى المعون ويدا به موسى ينجى من صدور ويدا به الملك ملك ما تمن لا تكن به إلنا فنذكر كل هدي وتقل عن إتناب قل كل البلد أمير أنير بالملك أنا أدل في المدنيين الإيجاد والإمداد منه النبي بسمة عين العيون وقرأ فوق البراق إلى سماه ودعنا له الملائك أن يديه وفي الإسراء قالوا غير ذلك المولى فكاتب خير الجميع علينا الحمد حمدا قرحنا شفاعة المقفى كل فنحمده ونشكره كذلك الحال منكر به وين النبي كان قبل الكون نورا فجاني قول وحي كل دين وعام ثم شهر ثم يوم أتى فيه المدى قرن القرون